di siyaar képp ku hmm ni. Mhm. waxtu bi ñu toll yaa ngi déglu. hmm hmm lay nuyu bu baax a baax. jaajëf jaajëf jaajëf jaa euh, rapidement xam naa dañuy euh, commencer rek euh, li nga xamante ni même pas trois jours muy album bi nga xam ne moo nekk sa premier album solo di Abiyo nga génn ko mu nekk album boo xamante ni vraiment nice na juste rek avant ñuy démarrer ñu bëgg nga indil ñu définition Abiyo lan mooy Abiyo parce que gars yu bëri comprendre quoi. waaw Abiyo sama sama sama sama maam moo tudd non. Mhm. allo. Abiyo mooy sama sama sama maam moo tudd Abi Gaye. Abi Gaye waay. waaw léegi nag ma tuddee ko album bi. Mhm. tudd Abiyo. Mhm. donc euh, Abiyo man bi ma nekkee xale sama maam moom tam. noonu laa ko doon woowee Abi Gaye. Abiyo. donc sama album noonu laa ko tuddee sama maam ba ma muy jaay la.

ñu dem ba ans après. waay. ma di ko sama album solo ko Abio ok euh, donc euh, di rappeler gars yi euh, yéen ngi am instant bi Jahman express press mu génne album Abio comme ni ko waxe rek album bi mamam lako ko mais Dia album bi gis nañ ni vraiment titre yëpp hein, bo xolé presque thème yi mo si ëpp ote que genre eco écotrip quoi pourquoi hein? allo yaa ngi may dégg maa ngi dégg wa mani gis nañ album bi bo xolé presque daf thématique yi mo si ëpp waaw bien sûr parce que comme ni ma ko waxee ci sama intro rek mu ne album bi foo mu magee. Uh-huh. parce que sama maam laa ko tuddee. sax donc am na ay détails yoo xam ne dañ ko wut. Mm-hmm. woon mu am ci album bi. Uh-huh. nekkul woon ay euh, album uh-huh. boo xam ne nii dama koy def pour ci def leen soo xam ne wala dama ciy wax loo xam ne. moo koy déglee euh, dina ma. d' accord d' accord. yeddaa a ok ok gisu euh, rek euh, mais gis nañ tamit yaa ngi ci def featuring euh, ñoo xam ni dañoo dëkk Kaolack eh, mais pourquoi pas choisir yow fi nga dëkk muy Diourbel wala Mbacké wala yeneen kii parce que na boo yu fi nekk pourquoi nga def choix bi yow dem jël yeneen artistes yoo xam ne ñu ngi si yeneen raison bi ko Salman la non pas seetlu maayan parce que bu nexee seetlu maayan yow yaa ak seetlu maayan mooy express rek mais comme yeneen new génération yi nga xamante ni comme euh, su mel ni Ouz Ouz bu euh, Zik Music euh, comme bu ma waxee loolu c'est-à-dire que génération bu ndaw bi fi nekk laay wax quoi. waaw mooy li wax rek parce que album featuring choix la rek. ah choix la. choix la boo xamante ni de temps en temps label bi ngay liggéeyal mën nañ choisir ñu bëgg nañu defal moom featuring. Uh-huh. yow artiste bi en tant que tel. Uh-huh. mën nañ choisir nañ ñu bëgg a defal pour dëgg. parce que dañu xeeb ñi nga xam ne ñoom lañ nekkal bu dee. Mm-hmm. bu dee tendre la main wala defaree ci ay ñoo xamante ni. doon mm-hmm. nañ def ko def. Mm-hmm. suñ album on a fait un featuring avec pas

Uh -huh. Tellement se retrouve dans l'album, c'est parce que mm -hmm. si je me retrouve dans l'album, mm -hmm. man sama bopp en, en tant que diamant, mm -hmm. ça veut dire que les Baol les est parce que tey. Mm -hmm. moi le combat nekkul combat bi nekkatul biir ball, mm-hmm. dañuy war a nan la def. Mm-hmm. pour conférence artiste mm-hmm. donc artiste yi nga ñoo wala hip hop. hip hop ci hip hop hip hop la. Euh, fa la toll ku nekk ak sa koñ ku nekk ak sa saay ku nekk ak ni ngay représenté. ok hip hop néewtaan la ku nekk ak sa koñ ku nekk ak fi nga koy euh, représenté quoi. ok euh, gars yi di fàttali aussi euh, ñu ngi fi am Diamane XP mu génn album Abio mais album bi aussi disponible na mais dafa mel ni ñëwagul ñëw ñëwagul fii parce que gars yi koy laaj fii bëri na quoi léegi fan lañ mën a jaar ba am album bi. album bi disponible sur Audiomack. sur mhm. toutes les plateformes de parce que li tax mu li tax loolu mooy mhm. léegi dépassé nañ pour man ku ñuy defee ay album di ko def ay CD même su fekkee dina am sax ah ja non non loolu ah mais yow xanaa yow yaa ko dépassé wala ah <laughs> ma ne loolu yow yaa ko wala ah oui mais pour man album boo ko boo ko génnee yow yow am na ñu lay bëggee ay fan yoo xam ne war nga mën a def ay CD pour laaj parce que ñi laaj album bi fii bëri am na ñoo xam ne xamuñu sax luy mag. léegi dafa am benn affaire boo xamante ni. Mm-hmm. muy yow di man di tous les acteurs culturels. Mm-hmm. nga xam ne ni yaa ngi yëngatu ci bopp yow des années nga nekk benn animateur yëngatu ci bopp pendant des années. Mm-hmm. te tey. gis bi ñuy def muy musique urbaine bi demul fenn. demul fenn. suñu musique suñu musique bi nga xamante ni. Mhm. moom la ñuy def muy musique bi sax bi gën a bi Sénégal def sax. Mhm. demul fenn. Mhm. nigériens yi nga xam ne ñoo mujjee génn. mujjee ñëw suñu kaw sax. ñu ngi jaay seen musique international di ko jaay def di ko def boo bu mel nii nga def nii bokk na ci li tax musique bi taxaw. parce que xam lan moo tax. ban démarque non ban démarque laa def comme. non da ni yow. yow yaa dépassé CD loolu yow da nga ko war a sax dépassé yow en tant que tel parce que mhm. la musique elle est pas gratuite mhm. te les CD ça se vend pas kenn génnewu mhm. fi album fii Sénégal mosoo ko fee gis ku génne album yaay plus de mille ku ko ne mën na su mën na sax wax lu ko neex wax ay nangam nangam mais avant nga koy jaayee jënd ci benn bi ñu la gisaan di la ko wax donc pour ça musique évolué na comme ni nga xamante ni iPhone noonu lay génnee iPhone 4 génn iPhone 5 génn ko di ko Mhm. noonu la musique évolué ba nga xamante ni pour protéger les artistes. Mhm. les plateformes yi nga xam ne ba dañuy jëndee musique ay Deezer ay Audiomack ay Boomplay ay. Mhm. ay loolu noonu. tey boo demee France les CD dinañ génne CD pour support musical yi ñu mën ko téye xam ne lii CD mais mais xam nga mais wuy mais wuy ma fo allo. ma expliqué li may expliqué soo ma danga ma laaj rek lu ma wax wala. acca waaw mu nekk moom mooy. pour que ñu dem jël déglu yi. ci streaming yi man boog loolu mooy sama miin loolu laa gën a bëgg. Mhm. léegi yow. Mhm. mën nga am sa idée wu bopp nga ni dañoo a génne seere. Mhm. wala nangam nangam mais idée bi. mooy ñu pousser nit ñi ñu dem déglu ji. album bi. yenn plateforme musique yi nga xamante ni artiste la ci mën a bénéficier wu directement. musique bi mën see bénéficier wu ba pare mu participer développement bi. léegi CD bi. soo ko génnee. mënoo ko jaay lu bëri parce que boo génnee benn PDS. ñu mm-hmm. def xaalis. Mm-hmm. estampillé ko hologramme yi effet nangam nangam nga génn ñu piraat ko. Mm-hmm. même bu fekkee ne sax musique mu ngi disponible ci plateforme bi dañ koy piraat. ay artistes ñoo koy liggéey yoo xam la man ci sama sama. personnellement loolu laa loolu laa loolu laa loolu laa yeewan nungul naa la loolu mais xam nga tamit wax nga si biir wax xam nga tey album bi comme li nga wax soo génnee CD comme lu mel ni bawal gi ak li ko wër am na ñoo xamante ni tey euh, boo waxee al génne na album séeréer lañ lay laaj. non dafa am loo doon wax sànq da ni bawal am na ñu nekk fii bawal. waay xamuñu lii xamuñu loolu nga si waaw am na ñoo xamante ne tey xamuñu lan mooy audio mag quoi comme li nga wax nii xamuñu lan euh, lan mooy euh, Spotify pour dem euh, streaming juste ko su ma waxee loolu am na ñoo xam ne tey comme man dañu ñëw di ma laaj ana album bu jaa bi ma leen album bi génn na ni ma ndax amul ci CD ma ne leen ah non gisuguma ko moo tax ma ñëw ni la lan moo tax disponible ci support yi pour CD wala clé parce que yow bu dul dara bawol nga dëkk te instant bii ma waxee yow bëri na ñoo xam ne dañu lay bëggee te tey jii bëgg nañ jàpp si li ngay def pour mën a jënd ci album bi moo tax ma ni la lan moo tax disponible ci CD wala euh, ci clé nga ni loolu tollatuñu foofu noonu ndax foofu laay waxee parce que am na ñoo xamante ne tey jii nii ñoom ci état boobu la ñu toll mais de temps en temps tey jii nii euh, yow sa album dugal ko ci plateforme yooyu bu ñu ko déggee tey xay na beneen yoon ñoom dinañ dem am dem déglu jóge ko feneen. yee mooy li ma lay expliqué rek. Mm-hmm. waxuma ne tollatuñu foofu dama ni. Mm-hmm. musique dépassé na foofu. léegi nag ku Uh-huh. yow yaa fay tollal sa bopp. dëgg la mais su fekkee ne am na ay nit yoo xam ne mën nañ la aider. Mm-hmm. pour que stade boobu nga toll noonu nga jógee foofu dem ci beneen stade boo xamante ni ça va participer au développement. Mm-hmm. parce que nag waxuma la yow sax. Mm-hmm. waxuma la ki ngay ki ngay keneen ci sax. dëgg parce que tey boo nee bawal. Euh, am na fii bawal ñu fi nekk. longtemps ñun dañ ñoo yàgg a tàggee. waaye moom comme ay bawal xamuñu loolu bu ko defee fii ndax bawal mënuñu lii. dama koy wax temps yëpp dama dem Diourbel ma gis ne ñu di ay di ay glacier di ay resto hmm. ay nit di investir hmm. parce que hmm. dañ doon wax naan waaye bawal man mënu fee investir parce que moo fi investir du baax parce que dafa nekk dëkk boo xamante ni soo fa defee duñ ko jënd bëgguñu lu baax ma ne leen bëgg nañ lu baax dañ koo gisul bawal bawal li ñun ji ñoo dëkk bi dëgg la bawal bawal yi gën a taxaw ci bi gën a taxaw boo demee Dakar ñoo ay bawol bawol dafa leer dafa leer léegi pourquoi tey jii nii mhm. benn nit buy ñëw ci bàyyi doon di ko wax loolu mhm. parce que nit da nga koy xamal parce que mhm. nit ki xamul bu xamul boo ko xamalul dëgg la boo ko bàyyee ci mu étape ma nee waaye waa bawal ñoom xamaguñu ay stream ak yooyu naa leen jëlal ay CD kon kon kañ la waa bawal di xam lan mooy stream bi te alors que ay nit lañ comme ñu nekk France xam ay xam ay am ay streaming. Mhm. am ay Deezer xam ay ñooñu ay nit yu tey boo waxee Bawol en matière d' éducation. kan moo di dàq jàng. Mhm. on a des taux de bac. dañuy mhm. am ci taux ay examen. kenn du ko am. parce que ay jàngkat ñoo fa nekk. dëgg la mais limiter cette intelligence. pourquoi nous on doit participer. à cette manifeste ba ak benn jeunesse boo xamante ni. ñu xam wala bu ñu dem jàngi. lan mooy développement parce que. sëriñ si am nañu dem leen ngeen dem ci connaissance dem leen ngeen jàngi nawle mhm. sëriñ Tuubaa bi nga xam ne moom lañu yaakaar daal mhm. dafa dem wuti xam-xam mhm. dafa dem wuti xam-xam donc sàkku xam-xam dafa baax ci lépp nice xam-xam dafa bokk ci information yi dëgg la non nice nice euh, en tout cas di rappeler gars yi euh, ngay am ni euh, ci i radio 100.6 mu un album Abio di gars album bu nice mais pour ñu jeexal ja dama ñëw ci benn track bo xamni bi de na muy sound bi nga xamni ne nga nix muy aw temps donc ja bobu tontu la wala soit nu mu demee nonu quoi parce que na trop quoi ci sound bobu les de temps en temps ku teman nga jël sa propre décision nga ni waa lii nii la demee man bañuma loolu bañoo loolu mais mais bañuma bañuma bañuma ku may critiquer bañuma ku may bañuma ku may xalaatal parce que man sama xalaatu boobu rek doyul dana dama naan man nii laa defee nii laa defee dëgg la di interpréter loolu choix doomu aadama bi la mais man pour pour li nga indi ci émission bi en tant que day mhm. déglu fii jamono bii. Mhm. te pour leur dire que sama album génn na mu ci marché bi. dëgg la. oh.